lu di wuyo def koy nduróol baax yaru laabir bari mandé ba nopi am yene lol ci domi adama yi ki moy serigne jaabi borom si jaada bi doomi réew mi la dib doomi daara ca Casamance la ko yàlla sunu borom baxal ko mu géejal lol ci xam-xam amna xam-xamu lasrar da fay set di listakhar alim la hafiz la amna xam-xamu lasraar ilmu nujum a mbokk yi yin ñi am jaxlé ci ay aajo yu taw faju wërsëg wu taxaw lo dugg du soti buntu bo jublu mu tëju ngay toppatoo ay kayit mu jafe mbaa ngay def concours di jongante bëgg caa am ndam nga am jafe-jafe ci sa néegu sëy maanaam kër gu yëngu yow mi nga xamante ne seytaane def laa sonal wala book nga am ay jafe-jafe ci wàllu rab mbiri rab sonal la lool ba yàq say mbir ci sëriñ jaabi borom si daadi bi laa lay yebal moo ca gaaw macha allah dafa xarañ lool ci ku seytaane sonal mbaa ku rab jàpp borom kurus la ba noppi ñeme sijaada lool ba ñu dippee ko sëriñ jaabi borom sijaada bi jëlal numéro téléphone bi gaaw 77 357 65 65 wala nga woo ko ci 76 495 Jaabi borom si jaada maa ko wóolu daal kii la jaam ñi doyloo daw leen ca gaaw mu faj seen aajo borom résultat bi laa ko tuddee dee ngir ay aajo yu fañu rek kenn melul ni ci Serigne Jaabi borom si jaada gi waa jàngook dee su ko yemale mukk ak gaañi jigéen ñi Sénégal li ngeen doon xaar yegg si na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 te doo si gis un effet secondaire Manila, un produit à base de carité. 20 jours la la may bou la nexé à commencer faire des bandeya fini les lèvres noires le secret est avec Zo Beauty Cosmétique kou fi sa tuñ ñuul désormais yaa ko teg sa bop woutal VIP lèvres roses mu faj sa aajo ya li ci gën a neex mooy am ñaari gamme yu ci savon d'urgence ak crème visage VIP c'est Beauty Cosmétique moment cosmétique, alors qu'attendez-vous Nous ngi Dakar nous nañ livrer partout au Sénégal Ou au gaaw léegi 77 127 68 80 but Beauty Cosmétique lu joy, la lu bon boo xoolee wax naa la ko ci suba problème yi nga nekkee nii nag man génneewu ma sa jabar. sam ban jabar na fi mbay. kooku bokkatul dëmm la taxul may wax suwaadu moo tax may wax. comment ça suwaadu lu xew encore. suwaadu. lii la. moo la jaayee tey kilo 2500. dalaa xàmmeewul xadi xàmmeewu la te xam naa ne doo fay jëndee moo tax. <laughs> waa Sadou. Mhm. lu tax nga jënd ceeb ceeb am na fi di. pourtant jël moon sax attends pour jënd ceeb de mais dama duggoon ci biti bi surtout am yu sew yu ma doon jënd mu peesal ma ceeb jox ma xam nga teraanga nag kenn du koy delloo. je rêve voilà soit du chaque fin de mois je vais ci boutique may en plus de tout ça borom yap aussi. borom yap bi Je ma sama téléphone soit de yemul ci vais rek borom bi kilo yap deux la koy Je what tegal ko ci un kilo muy vais francs loolu fan da naturel. borom yap bi abal ma téléphone bi ci jigéen bu am jëkkër. Souadou yamul ci loolu. mais Xadi yow. lii la la jënd yàpp rek lu ci jar tàppanteeg boroom yàpp ba mel ni ko amul jëkkër sa jabar yamul ci lii. moom damay bëgg jom eh, la. borom boutique bi sax bàyyiwu ko Cisco. mais Souadou mooy imbécile dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg Souadou mooy doomu xaram. kon kay man maa ngi doog a def remarque bi soit à chaque fois bu ayee su ma ko tegee loxo daf may rejeté. lu mu koy doyee lu muy doyee dessert lekk ba suur lekk ba gàll bay waaj a wocc lu mu lay doyee sis ko da utiliser rek de. kon ça veut ko que soit mu day génn ci mbedd bi di def nag su dul noonu. loolu mooy tax bu ñëwee guddi gi muy mel ni ku sonn kër. soit du bonam foo ko nattu weesu na ko. te gis nga li nak ma bu ko wax dara sax. buka wax. loo koy wax. lan moy bu mu wax dara xadi. gis ko man may japp sa loxo nga gisal sa bop sa beut tegu ci kaw mu leer na ni gis nga preuve yu leer nañ sans pour autant ngay dem di bu ko wax dara de. legi yow kon nan nga gis na la wara comporter ci bir keur gi. nga jël ko classer ko tege ko nele bu anyam añam ko ne la kaay añ ko buguma sourna sa d'accord man xadi nga wom ba ma ñëw ne ma defaral ma lu ma ma defaral la lu neex. jam yow na sa sedd. bu la joxee café nga ne ko buguma sa café. parce que wóorul sax mu na def dara c'est pas sûr. nga deug xadi man man may mbam man man ma bon yow ya bax ça dit man je peux pas comprendre hein man nan la mën a ku melni mi am jawaju rafet melni yow bax bëgguma yéne ma lu neex man ma mel nit koo xamante ni kii rek topp soit mais dootu ko defati. lépp du kenn nag. sa yaay kase la. sama yaay la lenn de xam naa ko moom sama yaay moom bés bu duggatee ci kër gi loolu dinaa ko dàq comme kuy dàq lu ba nas xel dal ko. ma fii yëpp damaa doxo dox xoolal sama tàngi nu pëndee lu xew baa jàmm. jàmm la kay. lu xew. tanta. waaw maa bëgg. ak nga def attention bu baax ci sama tanta. lu xew mbaa jàmm. ndaxte man démb si guddi ba may nelaw damaa génn ma may waxtaan ak sama yaay sama yaay nii na ma man naa la protéger aussi yow na nga sama tante bu baax. ndax mi ngi lay waajal. waajal ma man mii. mi ngi lay waajal kay yóbboo donc ko moytu bu baax ndaxte. ba ma yeewoo gis naa sax sama tante xarit ak sama papa ñu yëg ci kaw terrasse bi xaw nag lan lan la ñuy wax. <laughs> Amina xëy na yow sa nelaw yi ñoo xur rek loolu kese la moo tax ngay gént te sa papa ak sa tante bu ñu yéegee ci kaw amaana sa mbiru yaay rek lañ doon waxtaanee. sama mbiru yaay de. ndax bu nekkoon loolu ñu soo mbiri yaay duñ si nëbb daal dañ ngay ñëw rek wax te bu nekkoon loolu la dañ koy waxee si biir néeg bi wala ci kuur bi wala ci saal bi mais dañoo dem ba si kaw waxee ko foofu loolu kay du sama kaaw yaay. wax nga dëgg Amina waaye nag dama lay remercier bu baax a baax ndax yow sama doom nga waaye sama xarit ga li nga wax nag dinaa ci bàyyi xel bu baax waaye damay dalal sa xel rek gis nga xadi mënalu ma dara bu jéemee it ba sonn it ma dara man daal li ma lay xamal mooy na nga ko bu baax ndaxte mi ngi lay waajal wallaay du yomb. baax na amul problème dinaa ci bàyyi xel bu baax a baax comme damaa teg cin te wóoru nag nañ dem balaa muy def sama cin bi dara sax <laughs> ah yow jaaxal nga ma. ko lan ngay def nii frigo bi nga génnee fi pour laal. eh frigo bi désormais fii lay nekk ngay xool may xool yaa ngi may dégg c'est plus sûr ndegam soit moom moo mën a fen teg ay waxam naan Nafi mbay moo fi ñëw ak il jël booyoo ndekete moom moo jëloon bébé Mouhamed yóbbu ko di fen di tuur ci biir kër gi désormais léegi frigo bi fii lañ koy teg yaa ngi comprendre ay jus ak ay ndox lépp da ci ne te capable mu dugg fii. def ci poison ñu nan ko dé mais ko mi ngi ñaaw de li rafetul de. lan mooy ñu ñaaw xolal amna ay canard mu ma mi ne damay déglu ko. gaaw. hadi gaawal. ok merci. te fi mu toll nii moom désormais ay décision lourd laa jël si moom damaa bëgg dund soit dina xam ne incha allah la ko digaale voilà fu ngi nii ñaari caabi nag laa la jox garal ma caabi bu baax bébé xool nga baax li ngay def li rafetul de te ñun ñaan ñoo bokk frigo bi yow xat da xool lu rafet ak lu rafetul yow soo ak lu ñu def ci kër gi yëpp nga may wax ay lu rafet ak ay lu rafetul contrôleel ma lii laa la wax est-ce may dégg fii lu mu fi munti soxla ñëwal nga taxaw mo xam jël le jus ak carotte ak lu mu bëgg jël xolal mu jël bu jëlé ba paré bu tëjaatal ma sama frigo dencal ma samay caabi. amul problème yaay kilifa gi lo bëgg ya lay jaam. wayo nga ni yaay la hmm? mhm. waay yaay. Hei, sama yaay ma xam nga ni do nit. lu xewatu noonu. way yaay sa xetu serigne foko jele mo lol ngay laaj. tey serigne khulle la. ya kan serigne khulle hmm serigne khulle da ngay dem ba sibi bi nga duggu saret mu and ak yow nan keur beuti keur beuti keur beuti ba nga yakar na yow man xiyam ko ndaw nga jëm nga ne cëpp dang dangi ba sa waxtu wi laal sa ndongi soo ko yëgee ci sëñ xulle waaye yaay yaa ngi doog a wax ki kay dëkkul Dakar Dakar yi la sëñ xulle ak Dakar sëñ fa ba ko fekk ndaanaa na fay dem coono du fa dem yaay doo nit yaay mbaa xam nga ni tey kër gi dëbb naa ko ba mu mokk looy wax ni yaay sa gàllaaj baax na de nga ni sa gàllaaj baax na Cisco daal laa jàpp tey cuq ko ci ñaareel bi ñaareel ba su du xanaa mu def na yaay mbaa xam na ni li nga doon wax yëpp dëgg la. Hmm. soit du tey maa ko toog tànkam sama tànk ba ci borom yàpp bi. turki cam. yaay soit di reetaan ak borom yàpp bi di tàppante borom yàpp bi may ko. ñaari kilo yàpp yaay. du ma magum xamoon naa ko magum waxoon naa ko la <laughs> nga ni ma. ñu ne déet dawaay mu jàll ca boutique ba ramasser fa lépp luy marchandise ba peñam fees mu ne yële dem. su ma yow Abdourahmane di caga borom bitig boobu di caga. li nga doon wax yëpp tey laa yaay saya gàllaaj baax na de. waaw. doo ma laaj fu ma ko def. foo ko def këf gi laa jël def ko ci nyuri jox ko mu naan. dañuy lii yi boo ko da ngay ñëw rek jox ma ma dóoru. mais la jox sa nga xaw dem bay sax ma jëlaat yow tamit eh xat xat dama lay yenu de. loolu yëpp. indi yow foo def réel yi. te àdduna wërngal képp yaa dàq defar sow. kenn du yow ci. Hmm, lii. mu ne ko dëndex naan xam nga xelam nekkatu si ñu ngi koy liggéey ak yooyu noonu. kii oh, na ma jox te yaay paree gu ma de. Ah, foo jëmaat. bu ñu añee ba pare. Ah. ba ma teg ataaya. Ah. ci Amina laa na ñepp xonam ci kanamu papaam pour mo meuna xamni yaay ndax li japp na carrément. daf ma koy defale wala deug la. dang koy fekke dina ko fekke pire. ci lu neex. ci lu neex. ay sama yaay. waye nak bu lo lepp jalle mhm. xanaa neexal bi lo may neexalee nak ah yaay xam nga ni yow tamit dama lay neexal nak may musa jàmm ku ma seen yow foo jaar matériel la. goma ma la. bañaka yaa ko moom yaay da ngay tiit li pour attaquer kassel la. wuuy yow kii du violé wi. yaa yow sëq laa lay jox pareegu ma ci kii kii laa koy def ak leefaa laa koy def wanta. bëgg nga xaalis. daa neex daa ko yaay sama yaay. de nga ko jox nii. waaye mbaa xam nga ni. comme li ma bëggoon am naa ko ci Cisco. non kër gi dina mel ni jàmm. lu ma neex laay def. boo ko waxee ma gëm la. dama laa bëgg. Votre série revient après la pub. Bach, yaru Labir, bari Mande ba noppi am yene lol ci domi aadama yi kii borom si bi Domi rewmi la dib doomi daara ca Casamance le soxeko. Yalla sunu borom baxal ko mu géejal lol ci xam-xam am xam-xamu da fay set, di Alim la hafiz la Amna xam-xamu nujum ah mbokki, am jaaxle ci ay aajo yu tewo faju taxaw lo buntu mu tëju ngay toppatoo ay kayit mu jafe mbaa ngay def concours di jongante bëgg caa am ndam nga am jafe-jafe ci sa néegu sëy maanaam kër gu yëngu yow mi nga xamante ne seytaane def laa sonal wala book nga am ay jafe-jafe ci wàllu rab mbiri rab sonal la lool ba yàq say mbir ci sëriñ jaabi borom si daade bi laa lay yabal moo ca gaaw macha allah dafa xarañ lool ci ku seytaane sonal mbaa ku rab jàpp borom kurus la ba noppi ñeme si jaada lool ba ñu dippeeku sëriñ jaabi borom si jaada bi jëlal numéro téléphone bi gaaw woo ko ci 77 357 65 65 wala nga woo ko ci 76 495 90 03 ci Serigne Jaabi borom si jaada bi maa ko wóolu daal kii la jaam ñi doy loo daw leen ca gaaw mu faj seen aajo borom résultat bi laa ko tuddee de ngir ay aajo yu faju rek kenn melul ni ci Serigne Jaabi borom si jaada gi waa jàngook dee su ko yemale mukk ak gaañi toog mu toog jéeg waay ñaw waxati naam sëñ boobu kañ nga fa déplacé te yëguma ko ci ëtt bi Cisco de la neen day xatal waañ bi moo tax mu génnee ko foofu Cisco ah, bi bari na jikko de sa jëkkër daa doy waar wala sa jëkkër <laughs> bàyyi leen sa papa bi ngeen di jëw waane tey man kenn dugal mu kaccat ma ca waane ana ana kii ana Alaaji. an sa papa Mina Cisco. Cisco. Cisco. xanaa xamul añ bi yow la xaar. naam. kan moo toogu. yow yaa ngi naax de. nga xëy fajar jox sa ñaari dépense mu ceebalul neex ngay laaj ci kan moo toog. Eh, kii lekkuma suur na lan. lan mooy lekkuma lekkuma xat yi xanaa doo dégg kii laa wóolootul ci àddina bay lekk ay lekkam lii la moo tax lekk ko dama eh. kan nga wóolootul yow waxuma ak yow man maa wax ak yow waxuma ak yow sama jabar xaddi laay waxal ah bon kon xadi sa jabar la pour man sa dëkkandoo la sax Cisco na neex eh eh eh Cisco eh doo ko def dara de doo ko def dara so ade anjen anjen añ leen ngi ñëw tante gis naa ne tey sama papa li mu la def du dëgg du yoon maa ngi koy trop non sa papa sama kilifa la am na droit yuuxu ma fu ko neex waaye nag xam naa ne tamit dañ koo jekku rek ci gàllaay ndax sa papa melul nii tànta yaa gën a xam ne lii sama tànta xadi loxoom jugu ci déedéet Amina bi yoon gëm naa ne xadi yoonam nekku ci ndax gis nga sa papa ba ma yuuxoo lu mu jëlee défense kon gëw ma ne moom am na ci part de responsabilité yow moom tanta mag bu dof la ak nga sama tante Xadi moom day màtt ba mu tàng ëf ba mu sedd doo ko comprendre nag. bi yoon du ci dara Amina na nga ko soupçonné rek mais lu ma leer ba leer ma loxo yaayam génn ci lii lépp xam naa ne mère Anna la. tanta man xawma lan la mais lu ñëw rek suñu kaw lay dal man moom dama boole ñaari naqar Paa Moussa moo fi nekkoon dama défendre kenn gisu ko sama sama yaay aussi moom tamit li li ñuy wax moom yaa nekk dëgg ndaxte sama yaay ak mu mën a régler problème bu nekk ci kër gi moom la ñëwaat lekk Amina. ñun ay jaam lañ rek yàlla dañuy teg nattu rek te buñ ko tegee dañ ko war a nangu man leen rek moom a jaaxal muy yow mais bu dul woon yow ñibbi naa bu yàgg ndax fii amatuma fi benn yoon place yow rek ndax xam naa ne bu ma demee du baax ci yow tante bul dem ndax soo demee loolu mooy sa sama dee benn yoon yow rek yaa ma mën a protéger instant yi ñu toog toogal rek nga muñ waaye Souadou sa jëkkër ji lan nga ko def ba mu ne du añ saañ Cisco mi est-ce que nit la. Xadima lan laay def sama jëkkër sama jëkkër mën naa xëy ak moom bokk benn lal mu xëy jox ma deppaas ma dem marché ñoo togg añ xaw ma sax lan moo xew. walaay saw defoo ko dara moo yore ji ko sulaaram rek fan yéen passé man la woon su ma ko joxee lekk mu bañ su ma ko joxee naan mu bañ di ma door di ma saaga lépp ngeen teg ci seen bët nag waaye man moom comme man maay xadi xadi mu bon bi lu ma defati ñu ne xadi xadi xadi waaye bii paa yow la <laughs> waaye ci yow nag lay teel a rek yow la ñu ñëw sa kanam di ma fa toroxalee nga ne pat waaye yow ku la laal laal ma Cisco na ci yow la jëm. ku la laal laal ma. déedéet Khady loolu moom jaru ko xam naa ni ku ma laal dina la laal te bu dul dara Cisco suñu kilifa la am ñu benn droit muy wax ñu ci teg. man kilifa kii di imbécile nga naan man kilifa kii de nitu dara tekkiwul dara démb ak tey nag mais man dinaa ko yemale ci place moom xam ne yemale naa ko nag maay aawa te maay ndeyu kër ah? naa ko teg place am yow sama raq nga bu la dara naqari day suus di ko nëbb wala muy volé loolu maa koy lijjanti soir yow bu la ci dara naqari.